magi dafa mel lu rakkaaju jël bigam rek saa bu xëyee rek di bind rek ay décret rek di dóor rek lu ko neex def donc ci loolu mu convoqué woon conseil supérieur la magistrature ba jël fa ay décision am ñu bëree bëri ñoo xam ne da leen a tabaat tabb leen am ñu xam ne da leen a yokkal grade tabb xam nga ci ci loolu ci la jëloon ab Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye mooy juge bi nga xamante ni moo atteloon ñàqal Ousmane Sonko ci loo xam ne tegu ko woon fenn ci tooñ après sax yooyu noonu la gars yi yóbbu Saba si fay kase ko ak juge Thior ab Ablaye njaay boobu mu jël ko yóbbu ko cour suprême mu jiite ko donc euh, loolu nag jomaay démb dafa jël décret annulé lépp lu nga xam te ni Macky Sall jëloon na ko ci tab yooyu mu tabboon jomaay dafa annulé waat lépp léegi ku ci nekk da ngay dellu ca place ba nga nekkoon waaw buñ ko tabee du question dafa leen dàq dàqu leen dafa leen nag dafa annulé décret boobu léegi bu ko annulé nag ku ci nekk place ba nga nekkoon fa ngay delluwaat rek. parce fam ñoo ne dafa may dañ ma leen a dàq mais non kenn dàq la am je pense dafa doon retraite moo tax ñu tegoon place am kii boobu noonu Ablaye Ndiaye boobu noonu donc décret boobu Macky Sall jëloon te xam naa yeneen yee ci topp yeneen ci des tam je pense que ni Diomaye dina ko dina ko dina ko dina ko annuler yenn décret yeneen yi mu jëlaat mais ci côté gouvernement bi aussi am na ñu may laaj gouvernement bi gouvernement bi wax dëgg yàlla instant dañuy def enquete de moralité ci ñi nga xamante ni ñoo leen jël ñii jël jël nañ leen ba pare mais instant yi de moralité la nga la ñoom waa nguur gi nekk enquête moralité nag jamonoy Abdou Diouf la gëj am ci réew mi enquête de moralité maanaam ci ñu ñuy tabb enquête leen xool leen parce que xam nga tabb nit ba pare tabb nit ba pare ministre jékki-jékki benn locomotive am génn fële. wala tabb nit ba pare gis ni defoon na benn détournement fële maanaam enquête yooyu la ñuy def ci nit ki ba pare soog a publier affaire xam mën nga jël nit après nga def enquête moralité ci moom bu gaaw gaa xool gis ne ah, waa ji de sawaay fii nii defoon na fa lii wala fii defoon na fa lii fii defoon na fa lii loolu la def loolu nag mi ngi am ca nguur Abdou Diouf yi ñoo yàq réew ci nguuru Ablaye Wade nañu waxante dëgg rek ci la ngay commencé di gis yenn façon ministre yi loolu na moo continué ba ci mag sàll ay Thérèse Faye ay ay ay ay ay ay Moussa Bocar Thiam mooy genre yooyu noonu ay Mame Mbaye Niang ci nguuru Macky Sall ay far far ba far ba far Farba Senghor ay Serigne Mbacké Ndiaye ci nguuru libéraux yi ci ngay commencé di gis yenn genre yenn genre ministre yi. waaw mais jamonoy Abdou Diouf balaa ñu lay fal ministre dañu lay gëstu xool la xam bu baax yow yaay kan ba pare soog la tabb bu ñu la tegee ñëpp ni gongo donc ci loolu lañ nekk nii moo tax affaire bi yeex maanaam enquête de moralité ci la gars yi di nekk loolu moo tax boobu ba léegi gouvernement bi publier guñ ko mais gars yi ñi ñu war a tabb am nañ leen ba pare seen liggéey pare na mais enquête de moralité lañ nekk ci ministre yi. mun boo tabee ministre ba pare ñu def enquête de malade ñu xool gis ni kii sawaay nekk dafa am benn feebar boo xam te ni ngi ko condamné mi ngi war a dee dans dans un an dans trois mois dans xam yu demee noonu quoi enquête yoo xam te ne pour xam ki l' essentiel moom soog a soo a publier loolu rek moo tardé affaire bi du leneen mais terewul réew maa ngi dox ministre fi nekkoon ñooy ne seen liggéey ba kër passation de service je pense di am noonu lay demee donc réew du taxaw nit ñi ñoo yàkkamti